jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp. yàlla yàlla jàpp ci suñu loxo ñun ñëpp. xawala ñu ci yoon moom bëgg. xawala ñu ci yoon wi mu bëgg yaa rabbi. def ñi di jàmm yam tànn. def li. bismillahi rahmani rahim. alhamdulilahi rabbil alamin. wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ñu dellu si ci téere bi di addaaliya bu al imaam alxasan ibnu masud al yuusi rahimahullah te ñuy tàmbale fi muy wax qunanun tasannawaha aljunaydu wa xizbuhu nazalu biha sharafan fawayda alfarqadi tilka almakaarimu walmaxamidu walula laa xaarizun tasqihi fi qaabin adi xam nga ci biir nuyu di weesu la waxoon ne la gën a màgg loo xam ne nit war na lu gën a màgg loo xam ne nit war na caa ñeete maanaam lu yeeyoo daal xam ne nii jar nañu cay ñeete mu ne loola te nit war caa xëccoo loolu mooy xam yàlla xam ay melokaanam xam ay jëfam jàmm bi tamit xam jamonoom te ñetti jamono la mooy tayam ak ëllëgam ak démbam euh, mu ne nag xam-xam yooyu nga xam ne la wax ne bu àndee ak jaamu yàlla ànd ak ragal yàlla ànd ak dellu ci yàlla mu ne bu boobaa dafay rafet ba xeeb mbaxanaam buur maanaam taaru na de waaye boo ci boolee jëf waa nag day gën a taaru boo ci boolee jëf day gën a taaru ba ni nekk buur doyee teraanga doyee taar boo ci boolee ñu solal la mbaxanaam buur boobaa day gën a day gën a taaru tamit rek day gën a rafet mu ne nag xu ne nun xam-xam njorox ton la moom xam-xam yooyu mooy xam yàlla boobu waxoon nañ xam googu mooy euh, ni ko yàlla waxee lim ñu xamal ci boppam mooy ci ay melokaanam lim ñu wax ne am na ko ñi xam ne loolu am na ko waaye nag al kayfu majhul mooy nan la nekkee comme ni ko imaam malik rahimahullahu waxee woon bañ ko laajee kayfa stawa al kayfa stawa rabbu ala al arshi maanaam kayfa stawa mu ne al istiwaau maalumun wal kayfu majhulun wa suaalu anu bida nekkul ne amul kayfiya waaye kayfiya ba ñun xamuñu ko kon lañ xam lam ñu xamal rek bu ñu waxee ne moom day dégg ñu xam ne day dégg waaye nag déggam bokkul ak déggu doomu aadama ndaxte balaa ngay xam melokaan yi day fekk nga xam jëmm ji te jëmm ji daf laa réer waaw jëmm ji daf laa réer kon melokaan ya bu ne laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul mu ne dara melul ni moom ba pare mu ne day dégg day gis xam nga doomu day dégg day gis waaye nga xam ne nag dégg ak yàlla ak dégg ak déggu mbindeef du benn kon wax na ne dara melul ni moom ba pare mu la yàlla day dégg day gis kon nga xam ne la muy wax mooy déggug yàlla ak déggug mbindeef du benn mu ne nag ku ne nun ay ñonoxton la moom xam-xam yooyu ñonoxton mooy njubbu doj fa gën a kawe ca dojoo jamono ci xunnatun tasannamaha yéeg na ko yéeg na ca kawam as sinaamu mooy li ñu tuddee jegeñ sinaamul bair mooy loolu di yëkkati ku nekk ci côté euh, dënn bi ci kaw côté dox gi boo ne tasannama nag mooy yéeg na ci kaw jegeñ ba mu ne xunanun ay njonoxton la yoo xam ne tasannamaha yéeg na ko al junaydu junaydu wa xisbuhu ak kuréelam nazalu wàcc nañ biyaa ca moom mooy xam-xam yooyu sharafan ci tedd foo fooy dal farqadi fu kawe bi du farqad fooy tasxiir la ci al fawq fawq mu ne Junayd ak gaayam wàcc nañ fa ca xam-xam yooya wàcc waaye bu kawe am fa tedd nga goo xam ne nii ak yëkkati ko ne moo gën a kawe sax li ñuy tuddee bi du farqad dañoo al farqadaani dew al farqad mu tilkal makaarimu yooyu tilka yooyu almakaarimu ñooy xam-xam yi waaw wal mahaamidu ñooy cant yi wal ula ak kawe la xaarisun déet muy soow mbaanit mooy soow mu forox tasqihi boobu da nga ko naan fii xaabin mu nekk ci këll adi bay aji ndawe waaw tilkal makaarimu man nga wax yooyu la yooyu la tedd nga wal mahaamidu yooyu la cant wal ula yooyu la kawe la xaarisun nekkul soow mbaanit boo xam ne tasqihi da nga koy naan fii xaabin mu nekk ci këll adibe aji ndaw wala nga ne til loolu almakaarimu mooy tedd ngay kon loolu mooy xam-xam dëgg du loo xam ne da koy lekk rek mu daal di jeex mu ne tilka riyaadatu laa riyaadatu raadatir ruhbaani bayna tanassurin wa tahawudi mu ne tilka loolu ar riyaadatu mooy tàggatu ya laa riyaadatu raadatir ruhbaani waxuma tàggatu way tàggatuy labbe ya bayna tanassurin ci diggante jéem a nekk nasaraan wa tahawudin ak jéem a nekk yahud mu ne nag tàggatu yooyu nga xam ne moom la ñu mel ni Junaydu ak ay ñooñam di def mu ne ak gaayame mu ne nekkut tàggatu làbbe yi nga xam ne lañuy def moom bokkut ak lii may wax ndaxte lii dafa tegu ci ndi ñoom lañuy def dafa tegu ci xam-xam tegu ci ndigal yàlla waaw kon ñaar yooyu duñ benn di làbbe yi du beru wala ñi ne duñu am soxna wala yu demee noonu mu ne ñii nag ñoom seen yoon muy al imaamul Junayd ak gaayam bokkuñ ak aw yoon imaamul junayd rahimahullah mu ngi tudd al junayd ibnu muhammad nekkoon benn sëriñ bu mag ci tasawuf wax nañ ne mu ngi jëlee li nga xam ne mooy ab tariqa ci sirri siqti ci la ko jëlee nekkoon na tamit ab faqih nekkoon ci madhab abi thawr mu ne ay a yuaddu nasran kullu ma mustansirin wa yuaddu laytan kullu ma mustasidi mu ne ay yuaddu ndax des na lim nasran tan kulluma lépp loo xam ne mustansirin aji tan tan la wa yuaddu des na lim laytan gaynde kulluma lépp loo xam ne mustasiri aji gaynde gayndelu la mu ne ndax lépp loo xam ne day tantanlu wala am na ñuy wax nasran licin ñaari benn mu ne ndax lépp luy licin licin lu dañ koy jàppee licin wala lépp loo xam ne day gaynde gayndelu rek dañ koy jàppee gaynde déedéet moo tax mu ne ay ndax des na lim des na compte nasran tan kulluma lépp loo xam ne mustansirin aji tan tan la muy abdu ndax des na lim laytan muy gaynde kulluma mustasiri lépp luy gaynde gaynde la salaku biha fi manhajin alaamuhu masmukatan wala masmukatun lissalikina muabbadi قد ضل عنه كل جاف كاشح أو غالط متحرف متشدد وعم جهول ليس مبصر حجة يوما ولا أهل الهدى بمقلد من سلكوا صوبنا جنيد رحمه الله أجنم بها تي xam-xam yooyu fii manhajin ci yoon mu abadi bare bu ñu mokkal alaamuhu ay mandargaam masmuukatun lu ñu yëkkati la kii ne ñeel way soobu yi mu ne kii di Junayd ak gaayam yi mu ne yoon wii nga xam ne mooy yoonu xam yooyu nga xam ne mooy yoonu xam yàlla mu ne ñoom day yoon la woo xamante ni soobu nañ ko mu nekk yoon woo xam ne yoon wu ñu mokkal la yoon wu ñu miin a jaar la xam bu ñu waxee yoonu mokk la mooy nga xam ne nit ñi yàgg nañ faa jaar mu ne nag yoon woowu dañ koo yëkkati ba mu kawe mandargaa mi leer naññ képp ku bëgg soobu rek yoon woowu dafay leer ci yow mu ne nag xat dalla sànku na anhu walis yoon woowu kullu jaafin béba aji beccangal mooy ko xam ne dafa ginnaaw kaashixin kay aji nëbbu nooneel aw wala kay aji jaxase nga xam ne xamul masala yi day ñëw di jaxase rek mutaharrifin kay aji jéng mutashaddidi kay aji tartarlu mu ne nag yoon woowu noonu xam ne nii moom dafa wane ginnaaw euh, dëddu euh, xam-xam yooyu nga xam ne moom la alimaamul Junayd ak am ak ay gaayam andi koo xam ne nii dafa bañ sax nëbbal nooneel euh, ku mel ni Junayd ak ñoñam wala sax koo xam ne nii amaat na sax topp na yoon woowu noonu waaye dafay jaxase xamul masala yi dafay euh, juum ci masala yi ndaxte la muy wax leerut ci moom wala koo xam ne dafa jéng wala koo xam ne dafay tartar lu mu ne kooku yoon woowu moom doo ko mën a gis doo ci mën a jëriñ Ah, la muy wax mooy koo xam ne ni dafa ñëw contre loolu wala mu ñëw daal di koy bañ wala koo xam ne sax mën naa mu ngi ci waaye dafa ñëw euh, lim war a xam dëgg-dëgg xam ko waaye dafay jaxase mu ne wa amin ak aji gumba jahulin kay reeraa kon lay sa nekkun mubsira xujjatin di aji gis lay yow man bés wala bi mu xallidi du caageen mooy aji roy li ahlil huda ñeel ñu njub mu ne nag ak koo xam ne tamit dafa dafa gumba ba du gis ak koo xam ne ni moom ñàkk xam moo ko dal dafa réer koo nga xam ne ni boo ko indilee lay sax du ko gis waaw lay woo ko mën dandil du ko gis mu ne te tamit nekkul di roy ñi nga xam ne ni ñooy boroomi njubi mu ne fa ida samat bi ka himmatun sabaqatun li suluki manhajihim fa baadi turshadi mattin inaaja sidqi wastud fawqahu karabal mahabbati waxtasim wa tajarradi mu ne fa ida samat bu yëkkatee bi yëkkatee bi ci yow himmatun ab yitte sabaqatun bay jiit himmatun yitte sabaqatun bay jiituwaakoon li suluki manhajihim ci soobu seenaw yoon fa baadin na nga njëkkalante turse di def na gindi la mu ne boo amee yitte boo yëgee ne sa yitte daf laa daf laa daf laa ñaax pour nga dem soobu yoon alimaam junayd ak aw ak aw gaayam mu ne bu boobaa nag maanaam yitte bu am doole moom la mu ci hibbatun himmatun sabaqatun yitte boo xam ne jiituwaakoon la maanaam yitte bu foor bu gaaw bu kawe mu ne boobaa na nga gaaw boo ko defee da nga jug mu ne mattin na nga dëgëral am na ñu def mannin waaye ñaar yëpp wér na parce que mannin mu ngi jógee ci na wala nga ne mattin mattin dëgëralal wala mannin dëgëralal inaaja sidqi yaa mbaa moom dëggu la yaa mbaa moom dëggu la wasjud nga dëgëral fawqahu ca kawam wala nga takk wasjud nga takk fawqahu ca kawam karabal mahabbati nëb cofeel waxtazim nga takku wata jaradi nga futteeku mooy nga raflewu raflewu mooy nga futteeku rek la ci nam fii li mu namm ci futteeku googu mooy nga takku bu baax nanga nga futteeku def na nga bu ko wax waxee nammul ci nga futti sa yére waaye nga takku ba dëgër rek mu ne nag bu fekkee ne da nga am yitte pour soobu yoon woowu mu ne boobaa ni ngay def mooy na nga am dëggu dëgër moom lay wax ne na dëgëral yaam ba nga xam ne moom mooy dëggu mooy dëggu rek moom la nirale ak yaam yaam baa moom mooy dëggu yaam mooy euh, buum bi nga xam ne ni mooy sës ci baag bi am na ñoo xam sax weñ lañ koy defee weñ lañ koy defee nga xam ne mooy nekk ci ngémmiñal baag bi mu ne nag boo defee yàmb ba pare nga jël ca kaw yàmba nga takk ca ab na na mooy buum gi nga xamante ni moo séparé goj bi ak euh, baag bi xam nga boo defaree yàmb bi ba pare am na beneen buum bu ndaw booy jël takk ko mu nekk ci kaw yàmb bi ci sës ci goj bi nga sës ci baag bi kon nga door a jëlaat goj bi takk ci kaw na boobu noonu loolu la ñu tuddee na mu ne nag boo takkee dëgëralee yàmb bi ba mu dëgër nga jël nëba takk ci kawam te nëba mooy cofeel mooy nanga nga dëggu ba pare ànd ak bëgg-bëgg nga daal di futteeku takkaayu loolu kese lay wax wal tudli garban min xijaaka bi mun netin fa ida faalta fa gayra mustaridi ridi mu ne wal tudli nga yoor boo defee loolu nag ba nga xam ne dëgëral nga am nga cofeel mbëgg bëggeel gaa ngi fa dëggu gaa ngi fa euh, mu ne nag wal tudli na nga yoor garban baag bi mun netin ànd ak kattan maanaam bi quwatin bi maanaam min xijaaka laala moom sa xel mi la baag bi mooy sa xel mi waaw bi lim ci nam mooy sa xel mi wax na la yaam bi mooy dëggu ne bi mooy cofeel baag bi nag mooy sax xel mi kon bu faw nga am xel fa ida faalta boo defee loolu fa xay faridi na nga root xayra mustari di nekkoo di aji xineeglu mu ne bu fekkee def nga loolu nag boole yooyu mu wax mu ne bu boobaa mën ngaa root lu neex ci xam mën ngaa jëriñ lu neex ci ay leer te bu boobaa maanaam nekkoo di mooy nga naan te pare woo euh, naan nga dagg ngay naan te pare woo naan nga dagg maanaam bu boobaa da naan ba ba doyal danga jël ci xam-xam ba mu neex la te bu boobaa kenn du la kenn du la kenn du la kenn du la dàq te naan ba mu yàgg nga arrêté te fekk ndox ma te fekk mandego mu ne warxal ala nujubin kiraamin dammarin min xazmika almamsuudi laysa bi unnadi mu ne warxal na nga laxas mooy tukki ala nujubin nekk ci kaw gëlëm yeeway tëdd jamono ci najibun kiraamin yeeway tëdd ba tey du marinier way xoos mooy yoo xam ne yàgg nañoo dox laysan nga xam ne nekkuñ bi unnadin di way njuy jamono ci aanit mooy jàdd waaw laysan nekkut nekkuñ bi unnadin di way njuuy di way jàdd loolu nag la wax ne gëlëm yooya min xasmika laala moom sa takku gëlëm min moom min am bayaan la mook min xijaaka ñoo bokk min am bayaan nga xam ne day leeral min xasmika laala moom sa takk gila al mamsuudi gade gu ñu raw maanaam takku goo xam ne takku gu dëgër la nga xam ne dañ koo raw ba mu dëgër mu ne loolu nag mooy gëlëm yi nga xam ne ni moom ngay war nga xam ne yu tedd lañ yàgg nañoo dox wadbit mazada sabri muhkamat al ura wa bi awni rabbika wa tuqa fa tazawadi mu ne wadbit na nga takk mazada sabri muusa muñ muhkamat al ura muy luñ xereñee ci ay buum wa bi awni wa bi awni rabbika mu ne wa bi awni rabbika ci ndimbalal sa borom wa tuqa ak ragal yàlla fa tazawadi na nga ko yóbbulu mooy na nga wut muñ muñ gu dëgër nga takkaayoo ko ba mu mel ni buum mu ne nag nga yóbbaloo ragal yàlla ak ndimbalal yàlla watasallayan an ummi dafrin wa ibniha wastawdiana daara niksin qududi mu ne watasallayan na nga miisu mooy fàtte an ummi dafrin walis ndey aji xeñ ta mooy àdduna wabniha ak doomam mooy koo xam ne dafa bëgg àdduna wastawdiana nga dénk ko daara niksin kërëg ñoxor xopp mooy koo xam ne ni ku néew doolale ku tekkiwul dara qududi kay aji ragal mu ne na nga fàtte àdduna boo duggee ci yoon woowu noonu sóobu xam-xam yooyu ak képp koo xam ne ni àdduna moo ko tax a jog nga wan ko ginnaaw léegi nag nga jàppee àdduna muy kër ak maanaam nga jàppee ko wastawdi anaa nga dénk ko moom àdduna daara nik si nga jàppee ko kër ak ñoxor xopp maanaam xuuxdu di koy aji ragal maanaam kooku nga xam ne bëgg àdduna wala àdduna si jëmmi boppam nga dénk ko def ko muy kër koo xam ne ni dafa tayal wala koo xam ne dafa ragal bëgguta soobu ci ay jafe pour yegg ci kawe moo tax wastawdi anaa nga ko dénk moom àdduna daara nik si muy kër a ñoxor xopp xuuxdu di koy aji koy aji ragal mu ne wasrim xibaalal wasli minha laa yaqul laka wudduha min baadi najjin rammidi mu ne wasrim dagal xibaalal wasli buumi jokk ya minha tukkee ci àdduna laa yaqul bu mu wax laka ñeel la wudduha cofeelam rammidi géeyalal min baadi najjin ci ginnaaw ak ñor mu ne nag na nga dagg àdduna talam ca na mu boo soobee ci xam-xam yooyu rek sa yitte yëpp boo ko jël def ko àdduna waaye na nga jël xam-xam yooyu def ko muy sa muy sa jub muy sa jubluwaay muy sa hëdëf muy sa xarat mu ne cofeel ak àdduna bu mu ñëw mukk gannaaw boo demee ba am lu baax mu ñëw naa la nag yàqaat ko loola nam mu ci oh, xam nga arab yi dañoo naan euh, euh, maanaam tabaqa xata ida andaja ramada uh-huh. maanaam togg ba mu ñor nga daal la nga toggoon nga daal di cee sottiwaat doom waaw moom lay wanan euh, yaakaar naa lépp bi noonu lañ koy waxee laa yàqul bu mu wax lakka ñeen la wudduwaa cofeel ak àdduna ràmmi di géeyelal min baadi natin ci ginnaaw ak ñor mooy ba nga lakkee ba mu ñor mu ne la nag léegi jëlaat ko nga ruutaat ko ci biir doom bi xam kon da ngay yàqaat la nga defoon mooy ginnaaw boo demee ba dogu ba dugg ci yoonu kawe woowu di ca góorgóorlu bu la dara wan bula dara yàqal fa nga fa nga war a dem bula la àdduna fëkk bula dara tamit euh, tere yegg fa nga jëm moom la wax ci ne cofeelam bu mu la wax ne géeyalal mooy ramadu mooy firi doom boo ne ramada mooy def na ko ci doom bi min baadina din ci ginnaaw ak yot parce que loolu yàq lay yàq lay tekki bu boobaa euh, wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam